mbokk téléspectateurs yi ñu nuyuwaat leen encore une fois jaajëfal leen euh, ci première partie bi fas yéene wéy euh, seconde partie bi nag ak honorable euh, député Abdou Mbow di rek président de la commission des sénégalais de l'extérieur comme ak. da ngaa juumaat. <laughs> président commission des affaires étrangères. de Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine dafa xaw a gudd nag mi ngoog kon voilà il s'est présenté lui-même mi ngoog ñu dalal la am mbégte nag euh, di fas yéene amal waxtaan bi ak yow waaw jërëjëf euh, maa ngi lay sant bu baax di rafet lu waxtaan bi ndax euh, démb la ma oustaz woo ma ne mm-hmm. ko incha allah dinaa ñëw fekke waxtaan bi di nuyu bu baax ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi muy mm-hmm. Sa Ndiogou Diop Ndiaye di sama grand bi nga xamante nii dañu bokk sport am na ay campagne yu ñu defandoo ensemble parce que man aussi dama nekk un militant du sport di nuyu bu baax aussi monsieur Sow maa ngi koy suivre ci kàddu yu rafet yi yow nag aussi di la nuyu bu baax ndax yow aussi on a partagé beaucoup de parce que li ma gënal ci Sénégal euh, muy Thiès euh, jàpp naa ne bokk nañ ko mhm. euh, di wax rek ne maa ngi rafetlu bu baax jotaay bi di ñaan yàlla lépp lu ñu fi wax aussi na mhm. doon loo xam ne lu buy jëriñ askan wi lay doon merci beaucoup Amine euh, galaata ñuy xuusandi comme ni nga ko waxee rek ndax sa commission dafa yor li nga xamante ni moo di sénégalais de l'extérieur te période euh, Covid 19 bi ñu nekk yaakaar naa ni am na ci lu am solo loo xamante ni nguur gi taxawee na ko foofu ak tamit ñi nga xamante ni ñu ngi koy jànkonteel waaye euh, vendredi dernier dañu dalaloon fii Serigne Cheikh Bara Dolly nga xamante ni bokkoon na ci assemblée ba ngeen di voté projet de loi de réhabilitation boobu d'habilitation autant pour moi donc mu amoon benn coow lu ci dugg tukkee woon ndax ci coow loolu sax gisoon nañu da ngeen mentionné woon ci kii bi de tous ordres boobu nga xamante ni indi woon na fa euh, laam coow polémique ba moom tamit sax nee na am na loo xamante ni yéen a ngi ci doon bëgg a sërëxal mu di loo xamante ni nag bu jàlloon daanaka njiitu réew mi Macky su boobaa dee bu mu di bu mi lu ko neex daal mu jël ko ci ay ordonnance tey jii nag mën na ni vigilance am moom moo tax ba lu ni mel amul yéen nan ngeen euh, doxalee mbir moomu est-ce que euh, ci loo xamante ni ministre de la justice moo ko indi woon ci mu bëggoon koo jàllale comme ni ko rek honorable waxee woon bële yoon wala dafa di loo xamante ni gisoon ngeen ko laata loolu yëpp di am te ci seen coobare bopp également euh, ci ngeen ci àndee pour ñu dindi ko. jërëjëf maa ngi lay sant bu baax xam nga jamono ji moom jàpp naa du jamonoy politique politicienne wala teesante wala yeneen xam nga euh, waxtaan moom wax dëgg def ci baax euh, te wax nga sànq ne wooyu burul woon vigilance am mais gis nga ne amendement bi ñu fa def benn nit moo ko def benn tour la am ab Mbow la donc euh, loolu wane na lu bëri muy benn beneen bi mooy xam nga aussi député bu nekk am na sañ-sañ def amendement donc bu fekkee ne da nga nekk opposition aussi am loo xam ne waa pouvoir dañ koy def su fekkee ne yow nee nga am nga vigilance bindal amendement parce que kenn du la ko tere donc vraiment euh, du ma dugg ci ay détails parce que l'essentiel euh, li am solo mooy dañu président de la république dafa def li nga xam ne mooy décréter état d'urgence article 69 bu constitution moom moo ko wax parce que article 69 ak 77 la parce que dañuy wax déclarer état d'urgence 69 ñëw pour loi d'habilitation 67 donc di wax ne ñaari articles yooyu ci constitution bi moom moo permettre président de la république bu ay euh, yu mel nii xewee mu am sañ-sañ laaj assemblée nationale ñu jox ko loi d'habilitation boo xamante ne ni dafay am dure boo xam ne trois mois la pour que moom mu mën a jël ay ordonnance pour mën a euh, gouverner nga xam ne mbir yi day gën a gaaw parce que dañu wax ne ordonnance yi dañ naan moom mooy jël maintenant def du domaine de la loi li ñu koy waxee ci tubaab maanaam li loi waroon a def moom moom moo koy def mais dafa am foo xamante ne nii dañ ko encadré mais aussi dama bëgg a firndeel wax ne ordonnance yi nga xam ne président de la république mu ngi koy jël bu ko jëlee ba pare dafay am li ñuy woowee loi de ratification boo xam ne day ñëwaat assemblée nationale pour que député yi saytu ordonnance bi parce que duñ ko jox rek ne ko defal ordonnance après mu jeex non non dañuy saytu li nga xamante nii moom la def ci ordonnance bi te député yi am nañ possibilité def ci ay amendement au niveau de ces lois de ratification donc loolu aussi baax na di leeral beneen mbir bi mooy euh, xam nga ministre de la justice dafa ñëwoon daan ne comme ni nga waxee groupe de mots tous ordres ba pare mu am judiciaire ñu ñëw mu indi coow lu bëri te président de la république jamono jooju dafa yónnee benn loi d'habilitation ba pare nga gis mu consulter toutes les couches de la population mooy homme politique yi société civile religieux yi ñëpp waxtaan ak ñoom ne leen man kat lii laa bëgg a def bi loolu amee euh, loi bi ñëw assemblée nationale ministre bi ñëw indi li nga xamante ne ni moom mooy ay euh, benn euh, benn amendement mooy bi ñu adopté mooy tous ordres ba pare ñu def ci juridique moom mu expliqué ne gis nañ ne am na ñoo xam ne ay citoyen lañ ñu gis ne dàq nañ ay procès fële au niveau du tribunal ñoo xam ne dañoo waroon am possibilité def li nga xamante ni moom mooy ay recours ay appel mais loolu bu fekkee ne dàq nañ ay procès bu fekkee ne président amul sañ-sañ jamono boobu jël ordonnance pour yooyu lijjanti ko mais ñooñu dañuy perte mais mu ne comme loolu ñun nag bi loolu amee mu indi coow ñu ne nag léegi pour que vraiment bañ yàq liggéey bi nga xam ne président mu ngi koy liggéey nañ ko dindi ci la proposé amendement ñu dindi tout tous ordres ba pare dindi juridique ñu voté ko à l'unanimité parce que président de la république li ko tax a jóg moom mooy tey li nga xam ne moo taxaw muy Covid 19 bi nga xamante ni noonu la boo xam ne tuut na kenn xamul fu mu nekk da ngay jàmmarloog moom te kenn mënu ci teg loxo. loolu jàpp naa ne bu fekkee ne ni lu lu mel noonu dañu war a jànkoon teg moom xeex ak moom te mu am ay féewaloo ci biir askan wi du ñu dem fenn donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo amoon ci affaire loi bi donc vraiment ay polémique kii ak kee amul njëriñ li am njëriñ mooy Sénégalais yi ñoom ay borom xel lañ ay borom xalaat lañ te gis nañ li nga xam ne moom moo am mën a mën a nag foo ko dégg rek du yow dañ la ko jiiñ donc vraiment nañu bàyyi yooyu te xam ne am na jamono boo xam ne bu ñu ci yegsee yee ñu war a wax waxante kook yooyu dinañ ko waxante mais jamono bi wax dëgg yàlla na ñu booloo bokk ndey bokk baay te di rafetlu nag taxawaayu opposition bi aussi parce que quoi qu'on puisse am nañ taxawaay bu responsable boo xam ne bi leen président woowe ay à l'Assemblée nationale aussi ñëw nañu wane ne ñoom c'est des patriotes te ñoom leen tax a aussi réew mi la ñu ànd ak le président ak son gouvernement pour xeex li nga xamante ni moom moo fi nekk ci loolu jàpp naa ne ci la ñu nekk ci laa gis ñëpp di ci dox suba ak moom waaw comme que Covid bi moo bousculé li nga xamante ne moom moo di actualité également euh, dafa am euh, loo xamante ne président def na ko naam le 3 avril mu euh, génne quatre axes ci programme de résilience bi te quatre axes yooyu itam bokk na ci ci yow kuréel bi nga xamante ne moom nga jiite ci pentum ndaw réew ma mooy toogal fi ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñu mbokk immigré yi. Mhm. tey jii yaakaar naa ne. Mhm. naam xam nga nekk ci jafe-jafe sax nekk sa réew dina am lu mu apaiser. santé mais nga nekk si jafe-jafe nekk ci beneen réew itam réew moom am ay jafe-jafe doublement la ñuy euh, la ñu éprouvé ñooñu euh, tey nga yore seen euh, kuréel boobu am somme boo xamante tamit président de la république dégagé na ko pour émigré yooyu ndax yaakaar nga ne si fas anam ga nga xamante ne noonu lañ leen war a dimbalee ça va pas poser problème beneen bi moo di ne le ministre des affaires étrangères génn na xam le ne ku fa faatu itam léegi fa lañ lay denc itam dina doon lu métti loo xamante ne ñoom tamit dinañ koy wéy di ko dund waaye seen njaboot fii itam di ko euh, di ko dund ci yenn anam itam ak euh, li nga xamante ne état moo koy déboursé jëndal leen ay caveau foofoo toppatoo lépp lu aju ci enterrement bi fas yéene dimbali ñooñu foofu dimbali seen njaboot fii itam est-ce que tey euh, du loo xamante ne c'est lourd à porter également et comment ça va se ba nga xamante ne tous les Sénégalais fu ñu nekk ci mappa bi dinañu xam ne si ko jàkkaarlook Sénégalais yi ne leen yépp dinañ ko def yi nga wax yépp yooyu mooy man sama bopp sax awma benn sérieux bi hmm. parce que aussi il faut que ñu waxante li fi ne xam nga li fi nekk mooy lan le ministre des affaires étrangères wax na ko dafa wax ne d'abord damay ñëw ci affaire koor yi parce que ñiy saytu liggéey nekk ay infectiologue nekk ay médecin ak yeneen ñoo ne corps yi nga xam ne dañu gaañu ci Covid 19 suñ leen transporter ak manipulation corps yi dafay indi gën a wàllante yu gën a grave waaw xam nga nag aussi bala nga ne naam ne fa xam nga tey adduna bi ay nouvel ordre mondiale ay ordre mondial yooyu soppeeku na fi mu ne nii parce que mbir mi xamul ay Albert II xamul Boris Johnson xamul Abdou Mbow xamul amu kenn mooy ku ne mën na la jàpp. tey jii par exemple réew yi nga xam ne moom la ñuy wax les puissances les grandes puissances ñoo gën a sonn. États-Unis xam nga États-Unis tey ñoom ñooy pays bi gën a touché dans le monde. Mm-hmm. am nañ presque en 48 heures 4000 morts. Mm-hmm. loo xam ne Chine pendant toute l' épidémie amu ko. parce que Chine 3000 et quelques la amoon. moom en 24 heures mu am 4000 morts France gis nga li fa xew états euh, Italie. Italie donc l'Europe est devenue aujourd'hui l'épicentre de l'épidémie Asie la jógee ñëw Europe ñu ñaan yàlla mu bañ yegg si fii donc loolu li muy wane rek mooy le président de la République dafa def li nga xam ne moo ko mooy moom la tey sénégalais jox seen baat moom moo am la responsabilité bu fekkee ne am na loo xam ne dafa jóg daw ñëw ci sénégalais yi mu aar leen c'est c'est de sa responsabilité ñun ñi nga xamante ni aussi dañu am baatu askan bi am na loo xam ne daf ñu war moo tax président li mu wax les 13 milliards cent yi ñuy wax pour la diaspora mais dafa am loo xamante ni nii dinañ ko ci def mais mën na am loo xam ne dina des la preuve mooy le ministre a déjà informé que am na ñoo xam ne par exemple tey demoon Tunisie dem faju ji yoo xam ne du affaire Covid 19. cànq nekk ci ay hôtel ñooñu foog ñu jàppale leen tey jii par exemple am ay commerçant ñoo xam ne dañoo demoon Dubaay. Hmm. nga dégg nga dañ fa demoon benn euh, euh, nu ñu koy waxati euh, foire ak yooyu can fa di nekk hôtel di fay ak ñeneen yooyu c'est des cas urgents yoo xam ne il faut ñu lijjanti ko. Hmm. am na ñeneen yeneen dëkk ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am na yu mel noonu am na ñoo xam ne dañu nekk tey en France en confinement hmm. am koo xam ne am na liggéey day fayeeku am koo xam ne dafa nekk en cours de régularisation kooku mun a bokk kii fayeeku am koo xam ne étudiant la kii am bourse kay amul bourse ki am bourse ak ki amul bourse mënuñoo bokk atte am ñoo xam ne ay sans papier lañ ak yeneen ak yeneen ak yeneen donc loolu moo tax président de la république ministre bi bu mu génnee dafa wax ne d'abord <coughs> fu ñu dem ambassadeur mooy nekk la coordonnateur cellule ba fu am consul consul baa ngi ci le comptable ma nga ca les associations yi fa nekk ba pare ñu am ay pièces yoo xam ne dañ koy fournir parce que Europe boo fa nekkee pièces yëpp mën nga ko am en ligne mu am plateforme boo xam ne dinañ ne ah lii kat mooy séddale bi par exemple ñu ne France am na 1000 francs Italie am na 200 francs mais c'est un fonction des pays yi nga xamante ne nii ku ci nekk ak impact bi mbir mi am parce que xam nga tey mën nañ ne ñi nekk Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire feebar bi dem fa noonu trop comme ni mu mel Europe dem Espagne ak yeneen donc tey répartition yi mënut a nekk benn maintenant nag loolu ñu ngi ci dafa am commission boo xam ne ñoo koy liggéey te xam naa ne bis bu ñu paree ñu jébbal askan bi la nga xamante ni moom mooy seen liggéey mais li am ba wóor mooy déjà hier am na loo xam ne déjà commencé nañ ko def loo xam ne mooy le ministre avait pris la responsabilité comme ni mo cas urgent comme ñu nekk ay Tunisie ñu nekk ay euh, euh, Dubaï ak yeneen nga xamante ni dañ leen doon gaañ génne ci seeni i hôtel yooyu pour def de mais parce que loolu c'est à travers les ambassades nag du loo xamante ne xaalis bu ñuy jël yónnee Wari wala ñu yónnee Orange Money c'est des circuits transparents yoo xam ne ci lay jaar ba nga xamante ni euh, parce que administration aussi am na nu muy def. donc loolu mooy li xamante ni man mon inquiétude moom moo di ne euh, tey jii xam nga mun euh, pour répertorier le nombre d'immigrés déjà. ñi nekk en situation irrégulière ak ñi nekk euh, ñoo xamante ne c'est des yu ni mel euh, li may ragal mooy ñu toog ba jimmi jamono am ñeneen ñu tëb ne capp ne lay ne ñun jotuñu suñu wàll wala boolewuñ ñu ci wala nga te yaa ngi wax ne les situations et les cas différents xam nga loolu nag aussi mënul ñàkk xam nga li ñu naan tàgg boo gis am na jàppal jóg mais am na sénégalais boo xamante ni mi ngi France ne peut-être camerounais la parce que demul ci consulat parce que aussi dafa am loo xamante ni il faut que am mbir bu amee que l'État prenne ses responsabilités gis nga man suñ ma joxee mbir ma koy doxal ma nekk consul nekk ci dëw dëkk am na loo xam ne bu ñu nee lii sénégalais ko moom damay xool ñi nga xam ne ñëw nañ feeñu gis ne ñii sénégalais ma dem ci ñooñu ëllëg leneen lu ñëw ma jël mes responsabilité communiquer parce que nit nag da ngay jël say responsabilité mais lu ñëw rek bu ñu nee heure rek nga daw loolu du yëfu responsable kilifa kilifa suñ la joxee mbir da nga koy doxal mais nag nga jaarale ko ci yoon jaarale ko ci yoon parce que nag aussi su ñu la joxee mbir nga luubal ko ba pare bëgg a ñëw taxaw di wax leneen loolu ay waxu caaxaan la parce que j'ai l'habitude de dire que ñun amuñu sañ-sañ di luubal alalu askan bi parce que nit nag suñ la joxee cër bu sa moroom amul dina la fay salaire bu sa moroom amul jox la la responsabilité bu sa moroom amul parce que des fois nag aw jóg bu 20 heures jotee am naa la possibilité circuler yow amoo possibilité boobu bu fekkee ne euh, nekkoo peut-être journaliste wala leneen ak leneen leneen am na yoo xam ne bu la ko askan joxee war ngaa mën a jomba def yenn yi c'est ça la réalité mais nag su responsabilité jotee nag il faut prendre sa avec fermeté avec responsabilité su su dóor jotee nga dóor su waxtaan jotee nga waxtaan su communiquer jotee nga communiqué parce que c'est loolu moo tax nit di wóolu nit di ko jox baatam parce que ñi ñu jox seen baat ñun gënuñu leen ndey gënuñu leen bàyyi mais nag peut-être am na lu ñu wane wala am na loo xam ne def nañ ko ba ñu jàpp ne ñii kat war nañ leen a wóolu jox ko jox leen suñu baat waaw bu ñu la joxee sa baat seen baat bu ko fooye pour bu ëllëgee boo mënee taxaw di rendre compte nga mën a wax loo xamante ni dina mën a dëgg ci noppam mais am na également ñoo xamante ne tey jii peut-être jox nañ leen wóolute kóolute te doxalin bi gisuñu doxalin bi ñu ci doon xaar par exemple dañuy gis ci distribution bi ñu ngi koy wax sax ci aide alimentaire bi li population bi wax mooy nañu fexe ba mu am benn transparence parce que li ñuy bañ mooy tey ñi nga xamante ni ñoom ñooy euh, les principales les principales personnes yi nga xamante ni ñoo ci war a bénéficier wu amaana ñi nar a def séddale boobu duñ ko defee am na ñoo xamante ni peut dinañ ci dem suivant leur bonne foi def ko ni mu waree ñeneen ñoo xamante ni nag rafet njort nag rafet njort nag dafa mm. baax xam nga mbir mi euh, des fois euh, am na ñoo xam ne dañoo xaw a catastrophiste parce que peut-être ay antécédents moo ko waral du ma ne warul am non c'est normal. Mhm. parce que alerte dafa baax parce que grand bi des fois. mu ko mu def ay ñaxtu yu ci yenn affaire mais après damay gis ne gars yi xaw nañu bouger c'est important parce que souvent euh, dañuy gis ne peut-être am na yoo xam ne day ñëw ñu doxale ko neneen. Mhm. mais alerte dafa baax par exemple man dama dama naw. un peu la responsabilité bi nga xam ne médias yi souvent dañ koy def par rapport ak mbir bu amee gis nga bu dara amee souvent gars yi def alerte mais bu ñu defee alerte da ngay xam ne ah yow kat lii gars yi ñu ngi lay xool teg la fukki bët mais leen laa lay xamal moom lii moom moom yoon lay jaar parce que problème bi mooy <laughs> dafa doon loo xamante ne nii man saa c'est loolu man sama gëm-gëm la c'est ma conviction te gëm naa ne day jaar ci yoon parce que nag aussi dafa am loo xamante ne nii même boo seetloo armée bi dañ ko ci dugal mhm. pour la distribution parce que président de la république euh, c'est pas parce que dama ànd ak moom mais dama xam Pastef ak fas-fas mu nga xamante nii moom la moom laa ko mos a xamee te loolu la am ànd ak moom pour que lii fa mu war a dem mu dem fa parce que nag aussi jamono bi ñu toll euh, dafa doon jamono boo xamante ne nii comme ni ma ko waxee sànq au début il faut que les gens sachent que la solidarité dafa war a nekk de mise te tey boo seetloo dans les quartiers muy saa ñoobu di ab ku ci nekk li nga am yaa ngi dimbali ñeneen sa yaram sax day daw dangay gis dans des quartiers yoo xamante ne nii ñii amuñu yenn kii mais dangay gis am na bouteille vingt litres dix litres ñu jël ko di takk ci ay kii def ci eau de javel nangam nangam pour mhm. nit ñi dara xasu ñi nga xam ne am nañ ay daara seen koñ dem wut ceeb dawlin ak yooyu man dans moom quartier y pratiquement trois quatre daara mais les gens dama leen gis ñuy dajale à gauche à droite pour toggal xale yooyu la ma la ma ca man ma def ko ci ak yeneen ak yeneen je pense que su fekkee ne citoyens yi ordinaire yi ñoom ñoo def waxuma la ak état bi nga xamante ni tey moom moo yor sañ-sañ donc je pense que loolu euh, c'est quelque chose boo xamante ni. am loo xamante ne Abdou excuse-moi ah, ci ci ci lancé boobu non non damay damay damay bañ mu quand même de bàyyi ñu rek yow it nag parce que ñu mënu mënu ñu nekk ba ba nag ni mel ni ñun day débat du à tour de rôle wala dara ku sentir le moment d'intervenir tu interviens. may ñu ñun tamit ñu jël parole daal di laaj. Sa Ndiogou dañu am dañu war a wuyu ma xam nga débat. débat du à tour de mais débat du à tour de rôle sax. moo tax ni nga def du débat. de rôle parce que danga a si du tour de rôle sax. daal pour Ndiaw ñun dañu toog nii amuñu dara ñu sentir. on va pas polémiquer là-dessus. jëlal parole Abdou Mbow. Mhm. c'est que man li may wax mooy lii nga wax nii lu rafet la ni nga ko waxee. Mhm. mais ñiy alerté tamit dafa am lu yàgg luñ ñu yàgg a présenté. Mhm. loo xam ne nii lañ koy présenté. buñ ñëwee di ko wax. ni nii lañ koy defee te buñ demee ba ca biir dañuy gis. ay njuuj njaaj ak ay tappale mujj ci yarax loolu moo tax sénégalais yi ci seen dem bopp seen xel dalul ñaareel bi da wax ci ñi nga xam ni mënuñoo jëri ji seen kii c'est parce que buñ ñëwee day gën a wàlle mais loolu man pour man jàpp naa ni sénégalais bi nga xam ni dem na bitim réew am fa ay at gaañu fa ne serait-ce gouvernement bi war na mën a def lenn fexe ñu encadrer corps yooyu pour ñu mën a ñëw ëllëg si biir ngir seen njaboot mën a xam ni kat diw fii lañ ko denc diw fii lañ ko denc mais gouvernement bi fi mu doon tamit dañu mel ni dañu taxaw rek lépp lu ñëw rek ñu ne noo mënatu la ne ndax lii ndax gu ndax euh, jàngoro ji day wàlle ndax lii ndax lii ndax lii fi ñu làqatu dafa xaw a yomb quoi et puis tey bu doon tey ji tey bu fekkoon ne benn français moo dee fii France danañ ko jël yóbbu ko mais du benn bon léegi mën naa mën naa c'est que il mën nga ma déglu Aliou kii laay laaj il faut tamit ah. loolu tamit ngeen bàyyi ci xel waaw yi fi mu toll dafa mel da ngeen leen ñoom loolu lañ gis waaw léegi euh, dama bëggoon nga may ma tontu ci li nga xam nga euh, c'est pas man maa wax spécialiste yi ñoo wax ne ah. loolu gënul mooy ñi nekk fii du tubaab du leneen ñi nekk fii ay docteur di liggéey parce que gouvernement bi aussi décision yi muy jël c'est des décision encadrées président de la république boo déggee ñu naan conseil scientifique bi proposé na ko nangam parce que ñu ñoo war di wax ak moom maintenant moom mu ñëw au dernier moment mu décider. xam nga aussi c'est pas gis nga des fois Sanjo nañu bàyyi émotion bi. xam nga am na foo xam ne bu ñu fa tollee dañuy bàyyi émotion. ay guvernement bi na dajale xam nga am na maslaa yoo xam ne premier jour couvre-feu bi gis nga ni mu demee nit ñi génn ci mbedd mi nangam nangam mais après gisutoo kenn xam nga il faut que nit ñi. ndax dóori quoi s'il vous plaît ma àggale. donc juste pour wax la ne la adduna bi ak fi ñu toll ak feebar bi ni mu demee gis nga ku amul sa responsabilité ak fermeté sa réew fi lay jóge naax saay. Mhm. et le président de la République et son gouvernement. am na loo xamante ni duñu ci badine man de Abdou Mbow ak foo xamante nii mën naa fa wax sama baat yegg fa am na mesure yoo xamante ni pour man on doit être intransigeant là-dessus parce que nag aussi gis nga li wax naa ko sànq ci wolof bala nga ne naam ne fa gis nga tey balaa ñu fi wax di wax émergence économie liggéey nangam émission bii ak yooyu bu fekkee dafay dal ko ne c'est parce que dañu am la santé mm-hmm. dañu am population bi am ci lu ñu nekk gis nga li ñu wax noonu je pense que c'est des mesures salutaires parce que la preuve tey jii les cas importés c'est quatre-vingt plus de quatre-vingt-dix pour cent. oui bah oui. ñun suñu frontières yi ñu ngi wax sax dañ ko teel a tëj. te pourtant ñun bokk nañ ci njëkk a tëj suñuy tey jii par exemple boo seetloo diggante. mais Abdoulaye kuy dund ak ku dundut bokkut. non kii ba dee kooku li ngay wax nii wóoru la. parce mais ay nit a ngi am am na am na ñu ci décédé wala amuñu si décédé. da nga may déglu du encadré nañ leen dem leen ba denc leen. da may déglu yow sans pour leneen xew ci. yow ñi fi ñi fi faatu am nañu ci décédé Pape la faatoo. xam nga xam nga xam nga malheureusement mm-hmm. malheureusement c'est très difficile mm-hmm. euh, boo laajee te doo déglu. non maa ngi lay déglu de. waaw da ngay déglu c'est que ñii ñoom ñoo ci xamut dara ba noppi di di. waaw d'accord mais yow aussi da yow tamit comme li nga da laaj xamoo bu ñu lay xamal dangay déglu. mooy xam nga lan ñaar ñi nga xam ne ñoo génn àdduna. Mm-hmm. saa njóogu fekkee woo ko. condition yi sax bokkul. gisoo ku ko fekkee. waaw franchement. yaa may dégg. Ah. xamoo heure bu ñu leen denc. ak ni ñu leen denc ak ni ñu leen denc ak ni ñu leen sange. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. donc nit boo xamul dara da nga ciy maan. muy benn beneen bi mooy. ñi ngay wax naan ay médecin nangam ñooñu ay ay ay ay borom xam-xam lañ. ay xam nga tey sa lii nga nekk nii ay animation nangam ak euh, comédie yeneen ak leneen yaa ci man man du ci jéem a dugg mais gis nga lii dama bëgg yow li médecin yi dégg wax nga koy jottali ndax loolu mooy sa wareef waaye bu ko contesté parce que la science dafa am ci suma lu muy sukkandiku ay science exacte la ñu am ak li nga xamante ni science bu exact dégg déglu science exacte nga loolu tout le monde ñëpp xam nga nag nañ nga nag nañ ko déglu ma donc. Euh, déglu ma déglu ma non non non da ngay dee dans nangami kii mu dépassé ko. Ah, exactement loolu ñëpp xam nañ ko vraiment. waaw déglu ma xam nga mère trop trop xam nga yow. waaw yow. waaw soo feebaree. nga dem ñu bindal la ordonnance. Mhm. da ngay jënd ordonnance faju. waaw duñ la bindal chloroquine. nga dem jënd. Efferalgan gam mhm. saa njoogu nit. day wax dëgg te yàlla tax gis nga àdduna am na loo xamante nii soo ci nekkee. te mu doon une responsabilité da nga koy jël ba mu mat gis nga gouvernement bi ni ma la ko waxee. du bouger d'un iota sur les décisions la yu ñuy pour protéger. les populations may ma wax li léegi médecine bu doon euh, science bu exact est-ce que kon dinañ wax ne test yi. yaa ngi détourné yaa test yi am na risque. kon dañ naan zéro risque la ma ñëw ci loolu ma ñëw ci loolu ma ñëw loolu. mais du science bu exact médecine loolu ñëpp xam nañ ko. mais mais mais ah, xam nga ah, saa ñoom xam nga saa ñoom ñoom eh, eh, comme si. lu bees la wax lu bees parce que médecine également parce que dans la médecine on ne donne pas xam nañ exactement c'est que revenons à revenons revenons nañ ñëwaat ci mbir xam nga Sandiogou mi ngi bëgg a indi yeneen parce que moom moom wax na mm-hmm. ñu yemale ko wax na ko lii moo am mu bëgg a indi yeneen loolu duñ ci dugg lii lu am lu am solo la. allez-y dafa sérieux. c'est trop sérieux. et il faut ah. que ñu xam ne la responsabilité de tout le monde est engagée te comme ni ma la ko waxee l'État sera ferme. Mmh. dans ses décisions. léegi daal kon ki ki euh, lu sérieux la kon ki nga xam ne mbokkam dee na bitim réew moom loolu moom nekkul loo ah, xamante ne bi lu ah, sérieux la pour mu indi fi ko fi jamono ji nekkul jamono ji képp koo xam ne képp koo xam ne yàlla def na nga génn àdduna ci Covid 19 mënuñu la rapatrier. beneen nag mais ñoo xam ne génn àdduna àdduna ci ah, loolu. déglu nag moom da ngay déglu Abdou ah, Mbow. beneen bi non Abdou non non non non c'est que dafa am ñaari yëf. yoo xam ne Sa Ndiogou mu ngi koy wax. il faut ngeen bàyyi ci xel. Euh, dafa am yenn cas ñi décédé te Covid rayu leen. dama ci doxal sax dama ci wu kaa. Ndiaye Doss. dama ci wax moom moom nee na la. moom nee na la. expliqué nga ko. non attends expliqué euh, yow kii euh, expliqué na ko. Mhm. ne ko ñi nga xam ne Covid 19 moo leen rey foofu. waaw médecins yi ils sont tey. dëgg dëgg médecins yi la ñuy déglu. loolu d'accord nañ ko waaye daf la ne ci biir ñi nga xam ne ah deewuñu loolu. Ah, waaw le ministre l'a éclairci ñi nga xam ne ñi nga xam ne. c'est ça Covid 19. reyu leen waaw. ñooñu mën nañ leen a rapatrier. waaye déglu ma waaye. Mhm. ku par exemple tey. man sama mbokk su faatu woon États-Unis ma am avion bu ko indi su ma laajee autorisation ñu may ma mu ñëw mais problème bi mooy il faut nga xam ne aussi compagnie yi mm-hmm. amatuñu avion loolu c'est tellement clair am na ñoo xam ne par exemple am na ay ay corps yu ñëw dimanche passé parce que am na avion mais tey jii par exemple Air France bu amoon avion mm-hmm. nit faatu France mm-hmm. muy ñëw Sénégal suba day ñëw parce que képp koo xam ne tey jii par exemple Ndiaye Dos yàlla na yàlla yokk leer. tey jii tey jii par exemple. su amoon avion buy jógee Espagne. waaw jàpp ci waay bi njëkk a ñëw ci lay bokk. non déglu ma xam nga loolu. tey lii xam nga souvent nit ñi dañuy def amalgame gis nga nit su faatoo faatu na. nit ñi dañuy fàtte ne. Ndiaye Dos nga baal ma. ngeen baal ma sax ni may tudd. mais bi mu nekkee en prison président la République moo ko gracier dooy affaire de nit c'est juste que c'est un Sénégalais qui a travaillé pour ce pays un journaliste boo xam ne wax dëgg yàlla tey jii kuy sénégalais war nga ko rendre hommage parce que nag ñun suñu diine sax muy chrétien jullit dañ ne nit su génnee àdduna la nga xam ca moom lu rafet wax ko man de xam naa ci moom lu rafet loo xamante ni mooy liggéey pour son pays mhm. loolu xam naa ko maintenant aujourd'hui mhm. la plaidoyer moi personnellement en tant que président de la commission des affaires mhm. étrangères am na loo xam ne mhm. maa ko ciy dox dëgg la am na leneen loo xam ne ñeneen ñu ngi ko ci dox mhm. parce que nag aussi su fekkoon ne par exemple tey soxnaam fa mu nekk wéet na fa tey jii sénégalais yi nga xamante ni ñoo fi nekk di ay confrères am ay yokkonga yooyu même tey bu ñëwoon dans ces conditions dëgg la kenn du ko mun a enterrer dans le parce que mooy profité di jaarewaale suñu doyen Golbert bi nga xamante ni aussi génn na àdduna gis nañ donc yooyu mais comme ni ko Sandiogou waxee xam nga ñun dañoo am diine nag mhm. dañoo am ay valeur mhm. tey bu fekkee ne par exemple nit génn na àdduna mu doon sa mbokk mhm. am nga bëgg nga su àjjuma jotee wala boo xëyee fajar dem siib ko euh, ñaanal ko loolu bu ñu sañoon ñëpp mooy am mais boo gisee ñu ne état bi dafay <clears throat> fay pour ñenn ñi parce que dafa am réew yoo xam ne saa ñëw dañ ne bu ñu la dencee ñetti at après dañ lay dindi parce que France loolu ma fa ah, non moom laa wax donc mais bu fekkee ne fay nga état bi daan ne moom pare na pour bu fekkee ne am na mu fayal nit mm. ñooñu pour l'éternité ñu mën a fa nekk parce que président Macky Sall dafa ne ñun suñu aada ak suñu diine may ñuy denc nit ñaari at juróomi at pour dind ko di ko yóbbu feneen loolu bokkul nag ci mm-hmm. parce que bu ñu naan repose en paix mm-hmm. moom mooy lii moom mooy mbir bi saa njóobu mais li nga wax man d'accord na même su ma sañoon yàlla xam na ne mm-hmm. képp koo xam ne génn nga àdduna nekk bitim réew nekk sénégalais mais ñu indi la fii denc la fii waaye nag xam nga cas exceptionnel dafay am xam nga li ñu naan en temps nouveau en situation nouvelle il faut de comportement nouveaux loolu moo tax tey jii situation bi am maa ngi wax sànq si début bi may wax daan àdduna bi xam nga liñ naan ay ordre mondial bi dafa bouleversé wu. parce que kenn xamatul kii la kenn xamatul kenn fi toll nii sauf kipp la. parce que bu demee bañ naan nañu tëj ku ci nekk tëju sa bopp sa biir loolu moom mooy jaaxle am na parce que da nga naan gis ñuy wax mondialisation. Mhm. da nga naan gis ñuy wax ay globalisation da nga naan gis ñuy wax ay euh, loolu moo fi dara mais aujourd'hui ku nekk yaa ngi toog. ci sa biir kër mhm. ba pare nag tëj sa biir kër ba pare koo gis muy waaj a ñëw sax nga fexe noo ko arrêté donc loolu ça veut dire que je pense que les stratégies aujourd'hui sont internes et chaque peuple devrait travailler à conserver li nga xamante ni mooy unité bi pour mën a xeex li xam mais euh, avant Aliou du ñëw si point boobu xam nga psychologiquement euh, feebar bi dafa am lu muy jouer ci nit ñi parce que dundin bu bees comme ni ñu koy waxee jëfin yu bees ak doxalin yu bees ci kaaw bi nga xamante xam nga Sénégal dañoo gëm euh, li nga xamante ne moom moo di dine ji rawatina su nit faatoo ak yi ni mel mais itam j'invite les religieux ñu génnaat wax itam parce que su nit faatoo c'est pas une obligation que ne dañu war a déporté korom indi ko yaakaar naa ne ku nekk fa nga faatoo fa la sa suuf nekk hmm. naam sama xam-xam sama àlluwa sorewu ci mais les religieux itam war na nañu génn def plaidoyer yooyu pour psychologiquement atténuer la souffrance di ces parents yi nga xamante ne ñoo nekk fii di dund li ni mel dama pour d'abord rendre un hommage mérité aux religieux dans ce pays xam nga euh, jamono bi ñëpp xam nañu séeréer la xam nga ñu ñi ñëpp peut-être ñu fi nekk ñu bëri ñoom mag ñoom grand ak yooyu mais Grand Goulin si mosoo xalaat mosoo gis booba ba tey ba nga xàmmee ba tey ñu ne julli àjjuma amul Sénégal. Mm-hmm. amul dëgg xam nga loolu garaaw. waaw garaaw na. ziar ñu ne amul. waaw Kazu Rajab ñu mm-hmm. ñu ne. appel bi suba amul appel laayeen amul. dëgg la dëgg la non non non donc xam nga loolu. donc. Mm-hmm. ba pare kenn du ci wax. waaw kenn du ci ñaxtu. donc loolu ça veut que. cette affaire la il aussi benn travail de fond et une conscience boo xam ne am na ci xam nga souvent damay wax ne ñun dañuy souvent wax ne way dee leen raxas seen loxo yi c'est vrai mooy les gestes barrières mais gestes barrières yi aussi baax na ci sànq euh, médecins yi aussi ñu ngi wax ne masques yi aussi baax na parce que le virus peut circuler dans l'air pendant huit heures donc yooyu yëpp dafa doon loo xamante ni virus bi du circulé de. ci jaww ji non non c'est que tamit Abdou Mbow buñ la bàyyee tamit. nga wax loo xamante ni virus bi naawul de. loolu bu fekkee ne par exemple Abdou Mbow. parce que bu ñu nee naawul Sadio Gueye tam kii même kii bañ na. circulé taw non kii nee na waxu ko. Abdou Mbow li mu wax li muy fexe la santé waxoon ñëpp ñu koy yàq. bu dee bu dee yow fekk non c'est dina yow. virus non yow non yow yaa war a dégg. non non non virus yow yaa war a dégg. amul ay kàddu nit ñi yóbbu. non day jóge ci yéen non non nit koy yóbbu. maanaam dafa ne médecin il a dit mais médecin. c'est pas Abdou Mbow wax. non du Abdou Mbow wax. mais Abdou Mbow li wax médecin wax. Abdou Mbow wax médecin la la wax. ah non non non non non non faut arrêter waay. di ko c'est pas Abdou Mbow qui a parlé. day jóge si man ñëw si yow. day naaw day jóge si man mu wax. amul lan la wax non loolu loolu loolu. dégg nga ma góob li Abdou Mbow wax. non li Abdou Mbow wax. même buy wax. mën lan la am day naaw waaye di wax yi muy wax waaye di wax eh, lan la wax lan la Abdou Mbow wax. Abdou Mbow lu mu wax dafa leen oh, ne médecin yi. nee nañu. médecin yi da nga weddi médecin waaye da nga weddi médecin. médecin loolu la ñu wax waruñu ko maa la Abdou Mbow lii ma moo tax ma ne. dama ne da nga weddi. ne da nga weddi médecin. médecin yi waxuñu dëgg ah, waxuñu loolu. waxuñu loolu laa wax dëgg de. eh bul déformer samay ah, propos non non bul déformer samay propos dama ne médecin yi waxuñu loo virus bi du naaw de. Ah, naaw non non quand même naaw. dégg-dégg la laaj. merci beaucoup non non xam nga la. seen yéen xam nga l' information yi nga xam ne moo am ci mbir mi xamu leen ci dara. non non ñan ñi wax. ngeen bëgg ma daan te dama damay d'accord yow. comédie waaye kii li mu wax du ndaw virus bi naaw. jërëjëf voilà c'est loolu laa bëgg mu leer. donc naaw donc s'il vous plaît. non mais attends non non non yéen a nekk ci lu sérieux parce que actuellement li ngeen wax da ngeen wax mu ngeen xamul dara ba noppi. yow yaa ngi weddi médecin yi. yow yaa ngi weddi médecin yi wax xamu na kii te parle de médecin. virus bi naawul kii médecin la la wax. non non attends kii médecin la la wax. newul Abdou Mbow. non Abdou Mbow nee na kii day naaw ñaaw daf la ne médecin yi nee nañu affaire bi day ñaaw mais di gëm ko wala wala wala nga wala nga weddi médecin yi ak yow di ma bàyyi wala nga weddi médecin yi da ngay weddi médecin yi kon oh, merci beaucoup merci beaucoup vraiment vraiment ah, non non non c'est c'est important vraiment ah non c'est important. non il faut prendre ça au sérieux vraiment. non virus bi naawul day dox. Sango vraiment est l'un des meilleurs de sa génération en matière de comédie c'est très bien. non non comédie wu ma la. am na loo xam ne c'est que li nga def nii mooy lu yomb nag man comédie wu ma. donc dégg fi ñuy waxee virus bi mënul naaw nit moo koy emporter nii quand même dégg-dégg la ñuy laaj nag bu ñu wax quelque chose vraiment lii du dégg-dégg déglu ma dama yow ci sa dem bopp da ngaa comprendre ci mbir mi dara virus bi naawul quand même da leen wax lu tamit quand même bu leen nekk bu di télé bi tamit di wax n'importe quoi naan virus buy naaw virus bu naaw day raam quoi day raam ah day xam nga raam wàcc raam en journalisme dañuy wax ne les faits sont sacrés le commentaire il est libre mais mais Sandiogou c'est c'est important nag yow tamit il est dans son rôle. et ça je te félicite pour wax ne. beneen bi mooy. non non mais c'est vrai ah, non mais c'est normal parce que parce que parce que parce que sànq gisoo bi mu ñëwee dama ko vraiment. je te félicite parce que tu es l'un des meilleurs de ta parce que Sadio xam nga kanam gi rek boo xoolee donc c'est important donc juste pour wax ne. parce que dafa ñaaw lool nag boole ci <laughs> donc wax ne. mais mais dafa bari xaalis. dafa di wax ne xam nga comme ni nga wax sànq peut être. yow baax na Covid. comme mu wax. brise bi naawul wax na dëgg de. Ah. mën na nekk ci air bi. wala nit wax mu wàllu ni nga wax noon la. non c'est important parce que moom aussi. non dafa am non non non bu leen wax naaw boo nee naaw dafay indi leneen. léegi brise bi. naawul dafay mën na nekk ci air bi moo tax masque yi nga koy porté. mais bu nekk ci air bi day naaw. waaw s'il te plaît on va pas bu ñu yóbbu débat bi ci loolu. nag donc vraiment c' est important donc moi je pense que euh, sensibilisation yi ñuy wax euh, am na solo parce que boo seetloo démb ak tey gis nañ ne amul cas communautaire. Mhm. loolu li muy wane. mooy ñi ngi maîtriser. Mhm. <laughs> aujourd'hui li nga xam ne mooy les déplacements et je pense que c'est salutaire que ñu jël des mesures d'arrêté de délivrer li nga xamante ni moom mooy les euh, autorisations parce que aussi dafa commencé woon bëri mm-hmm. parce que mënuñu ne état d'urgence la mm-hmm. transport interurbain dem nañ ko mm-hmm. ba pare ku jug wuti autorisation parce que wax naa ko sànq nee naa leen situation exceptionnelle bu amee il faut que mu am benn euh, don de soi bu ku nekk joxe man li ma daan def mënatuma ko def parce que c'est pas pour rien que ñu ne dafa am plan de résilience économique ñu ne par exemple dans le privé tey ñi nga xam ne seen liggéey demee demeetul noonu dootuñu am li ñu waroon am par exemple yéen pratiquement li ngeen doon mën a am ci publicité ak yeneen ak yeneen lu ci bëri maintenant ci Covid ngeen di wax ay sensibilisation émission ak yeneen mais loolu l'État bu ne nangeen fay seen salarié dafa am loo xam ne daf ko war a def dans le privé moo tax mu ne 70 pour cent tey boo seetloo le ministre du travaay génn na ordonnance bi nga xam ne président wax na ci travail nee na bu kenn dàq employé bu kenn euh, euh, nu ñu koy waxati se résilier benn contrat te ñépp nañu fay seen i employé minimum 70 pour cent bu dee ba dee donc donc ce qui veut dire que. nit nag mënoo ne ko yow sa dépense am na loo xam ne wàññeeku na waaye ba pare la nga doon togg da koy toog ba pare nga koy seetaan. moo tax l'État aujourd'hui doit accompagner ces mm-hmm. secteurs. Ah, et loolu. Hmm. il va le faire allah parce que gis nga ordonnance yi loolu lay def xaalis bi nga. xam ne wax ci loolu lay def def plaidoyer. mais affaire bi comme mi ngi doog a ngi doog a tàmbali. président na jël. résidence mm-hmm. la preuve mooy am na ku ci nekk dina ci gis sa bopp d' abord euh, ndox ak courant peut-être échéance yi jotoon na mais tey gis nga ne tranche sociale bi état bi dafay jël. li nga xamante ni moom la war a fay muy ndox ak courant. électricité bi ak ndox donc loolu mu doon loo xamante ni c'est des mesures d'accompagnement donc au fur et à ñuy dem ordinance yi tey gis nga ne ordinance su suba mën nañ gis génne beneen ordinance bi gis nga plan de résilience bi li ci wax ci àllu euh, diaspora bi gis nga li ñu wax ci wàllu Euh, sur le plan économique euh, donc c'est comme ça parce que au fur et mesure ñuy dem ci la ñuy génne ay ordonnance pour wax exactement fii lañ toll lii lañ mën a def lañ tout à l'heure ñi ngi wax ci cas communautaire yi je pense que tey jii les cas communautaires c'est la plaie même de ce Covid là parce que médecin looloo leen gën a mooy seen antisme on peut dire donc moom moo war a également doon antisme population bi ndax cas communautaire li nga xamante propagation xaw a difficile ñu pourquoi si on ne peut pas faire un confinement général pourquoi ne pas faire un confinement ciblé par exemple ñu gis benn localité gis ni foofu par exemple am na ay cas communautaires yu fa xaw a commencé jéggi dayoo ñu confiné leen. c'est-à-dire ñu am benn waaw barki démb gis nga Kër Massar. waaw gis nga bi amee. gis nga leen mesures qu'on a prises. Rufisque après ces am na mm. yeneen yoo xamante ne nii. Mm-hmm. tey par exemple Touba. Mm-hmm. am na mesures yoo xam ne bu amul woon. waaw duñ ne tey xam nga zéro cas lañ wax. Mm-hmm. mais c'est parce que am na liggéey boo xam ne mi ñu def parce que aussi du lu ñuy def lépp aussi lañuy wax du li nga xamante ni moom la ñuy jël yépp comme mesure la ñu mën a wax parce que aussi état dafa am noo xamante ni noonu lay doxee e tey boo seetloo par exemple am na dëkk boo xamante ne ni à Tamba bi fa nit ñi dëggee dañoo confiner le village c'est ça pendant 14 jours mm-hmm. histoire de ñu doog ko wax mm-hmm. xam nga loolu yëgoo ko woon man yëgu ma ko keneen yëgu ko keneen yëgu mm-hmm. am na loo xamante ni ni c'est de la responsabilité aujourd'hui de l'État parce que gis nga président de la République bi mu décrété état d'urgence mhm. loi 69 bi nga xam ne moom mooy lax lan mooy état d'urgence dafa ñëw wax nag prérogative yi nga xam ne moom la autorité administrative yi am parce que dañ ne autorité administrative yi parce que le ministre de l'intérieur bi muy def conférence presse def na ku ci nekk la nga xamante ni moom la sa gox mel ak na nga xam ne moom la bindoo yow yaay xool mesure yi nga xam ne moo dëppoo approprié doxa doxalinu askan ba pour nga jël ko pour que parce que am na ñoo xamante ne par exemple nañ ne fii bu ñu tëjul marché yi musiba am par exemple à Thiès pratiquement les marchés sont fermés ak feneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na aujourd'hui boo gisee ne amatul transport interurbain yi mais dina am loo xamante ni di nga ko mën a maîtriser aujourd'hui cas contact yi boo gisee ne ñi ngi dem ci benn ay ay hôtel boo xamante ne nii ñu ñëw foofu lañ leen def importé yi ak yeneen ak yeneen di leen suivre. Mhm. mais loolu dina circonscrire li nga xamante ni moo am. Mhm. Mhm. Kaolack gisoon nga bi mbir ma amee ñaari famille yoo xamante ni pendant 14 jours dañ leen a mettre en quarantaine gendarme di fa nekk di fay xëy suba ak ngoon. mais Abdou est-ce yooyu du erreur ba gis naa koo xam dañ ko dugal ci hôtel. mu yoo xam ne mi ngi nekk ci gundaandaat goo xam ne. loolu est tamit waruñu téye portable parce que loolu. mën na tax sax ñenn ñi bëgg a korom. xam nga nag aussi boo jëlee nit. waaw boo jëlee nit. xam aussi dafa am loo xam ne nag. billaay non c'est que li may wax nii. mais non mais dafa partagé ay photos bi kii bi. nekk ci luxe boo xamante ni bi peut-être mën na tax ñenn ñi. mën na ah, bañ a ragal quoi feebar bi xam nga nag loolu parce que feebar bi liy tax nit ñi gën a mën a moytu mooy ñu ragal ko. réseaux sociaux il faut faire attention il faut que tamit ñuy téye seen portable. xam nga am na jamono boo xam ne. waaw ngay partagé jour bi nga xam ne. jour bi nga xam ne dama lay wax. xam nga photo yeeg yooyu sax mën na xam nga des fois. téléphone moom am na loo xam ne mënoo ko. parce que nag aussi jamono juñ toll soo fi jëlee nit mettre ko en quarantaine nag yooyu nangu téléphone am amul. fake news maintenant nag dafa am loo xam ne c'est de la responsabilité de l'individu. mën na am yow xanaa benn nit jaxe a wax fi fake news pour te dire jour bi nga xam ne mooy premier jour couvre-feu mhm. am na mbir yoo xam ne. ci benn réew la xew fii du ma du ma wax ban réew après nit ñi génne nañ ko gis ne foofu la xew mhm. mooy nit ñi ñu dóor ba nga gis mu am loolu xam nga amu fi ñu génn naan gis nga nit ñi def ah. nangam nangam alors que c'était pas ici c'est des fake news yoo xamante ni. maintenant lii lii du fake news c'est que dama bëgg. donc li nga wax bàyyi xel ci loolu. dégg nga New York bi dañ bàyyi xel ci loolu. non ça c'est important li nga wax noonu. waaw li nga wax noonu. waaw dinañ ci bàyyi xel. voilà parce que je pense que c'est toujours important xam nga aussi même bu dee da ngay def comédie des fois aussi. ci biir comédie nga wax loo xamante ni quand même il faut il faut arrêter jël ma il faut arrêter. ay dëkk nag saa ñoo ko demee ci loolu. non c'est que ah dama ñëw man a ma la xoolee da nga ree toi aussi. non a raison. il a raison je vous en prie. moins de 1000 pour dire que. c'est moins de. moins <laughs> moins de 1000 900 et quelques familles. familles. famille la ñuy jagleel ndimbal loolu sur hmm. millions de Sénégalais. 15 millions de Sénégalais da ngay def 1 million par exemple. par exemple je vais xam nga aussi c' est des yoo xam ne moom la ñuy définir. te xam nga am na loo xamante ne nii aw jo ñu waxantee dëgg souvent boo duggee ci koñ dina am ñu fa soxla ndimbal mais am na ko soxlawu par exemple ñun ñuy toog fi yàlla ñuy dimbali. yàlla ñu ñuy dimbali. sant yàlla. am na ñeneen ñoo xam ne yàlla ngi leen dimbali te état bi li muy joxe it am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi nekk seen biir kon joxe lu ëpp état bi lu muy joxe. Mhm. donc te état bi mënut a def lépp parce que état bi dafa génn ne lii laa am dafa gay gert lii moo tax bëgg naa ko jox ñoom mais état bi su ma ñëwee toog fii ne la dañuy dimbali sénégalais yi am problème yëpp comme ni ma waxoon ni ma débuté rek loolu c'est pas possible mais nag. la majorité dinañ ci jot parce que xam nga bu ñu nee une famille en général les familles yi nga xamante ne ni dañu néew doole souvent Gomis boo duggee benn famille di ko fekk vingt trente personnes souvent da ngay fekk vingt trente personnes dix dix personnes huit personnes cinq personnes parce que c' est comme ça nañuy koy ba pare boo seetloo plan de résistance bokkul dañ ne non neuf cent et quelques ba pare ñu ne am na loo xam ne dañ ko teg pour xool après la distribution nan la ñuy def pour les ayants droit parce que dafa am ay comité sax de quartier pour la distribution parce que dañu bëgg mu gaaw bëggul mu nekk loo xam ne affaire bureaucratie lay doon ñëw fii bind à gauche à droite parce que l'État a déjà euh, les statistiques yi nga xamante ni moo koy permettre mu mën a dem auprès de ces familles là. mais Maintenant, ces familles là dañu ne euh, deux qu'on dise que ils se sont basés euh, sur euh, ñi am bourse familiale ak les indigents au niveau des mairies yi nga xamante ne chaque comité intermédiaire on les aide ci côté boobu. c'est pas ça est-ce que c'est pas sur cette base là qu'on a choisi les ayants droit am na am na loo xam ne. dañ ko jëlee ci bourse de sécurité familiale. Hmm. parce que nag bu ñu waxantee dëgg ña ñu koy jox ay néew di doole rek. mais bourse famille bourse bourse yooyu tam dañ ne affaire yi rek lañ ko jox tamit. waaw loolu loolu ñoo ci am ñoo ci am xam nga fi mu toll nii moom ku togg sa ceeb saful xorom sax nga ne Macky Sall la loolu c'est pas grave. <laughs> mais loolu amul problème mais ñun xam nañ ne. loolu c'est comme ça xam nga boo boo boo xam nga li ñu naan tàgg boo gis am na jàppal ku boobu bukki xat mbow la mais ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox yi par exemple man dama lay jox la réponse Thiès li yàlla di def hmm. trois commune yëpp maire yi fa nekk amul maireu APR. waaw réew mi lañ bokk. Mhm. te réew mi xam nga ay opposant la. Mhm. pourtant ñooy séddale bourse ci secrétaire. tamit am na lu mu ci wax après après ñëw ci déglu mën a jox ñooñu boo demee laaj leen. duñ mhm. ne la waa APR rek la. parce que man ña ma dëkkal. bien sûr la conférence. te xam nga ne Thiès ah, ah, ah, Idrissa ah. nañu wax dëgg donc vraiment yow xam nga. bu baax yow ala heureusement xam nga li yàlla di def rek. moo tax euh, yàlla day leeral mbir yi moo tax. loolu je pense que suñu maintenant nag c' est normal comme ni ma ko waxee sànq euh, lu parfait amul fenn. dëgg la li ñuy def nag mën na am ay sooxe mën na am souvent ay euh, loo xam ne nekkul li nga xam ne noonu la ko nit ñi bëggee mais bu ñu waxee dinañu fexe rectifier mais en tout cas dina ñu fexe ba def ko na nga xamante ne nii moom moo gën pour que sénégalais yi. mën ci gis seen mais lu aju ci aide alimentaire justement Talla Sylla mi ngi wax clé de répartition bu foofu il désapprouve ça parce que boo gisee euh, commune de commune ouest bi foofu y près de six mille et quelques personnes la ñu wax mhm. nga jël nord moo ci topp euh, cinq mille et quelques nga jël sud quatre mille et quelques donc moom nee na clé de répartition boobu il n'est pas d'accord parce que boo xoolee tey jii euh, situation démographique bi quartier bu nekk ak commune bu nekk am na benn une poussée démographique bu fa am te également yoo xamante ni kenn inscrire gu leen également ci registre euh, loolu comme moom xam nga moom mooy maire bi mhm. wax na loolu moo tax ma ne la xam nga boo gisee sànq bi may wax dama am na loo xam ne dañ ko teg pour mhm. rectifier parce que y a toujours des choses yoo xam ne bokkuñu amuñu répété parce que même recensement am na ñoo xam ne amuñu carte mhm. parce que ba ñuy dem demuñu carte wala defuñu leneen wala ñekkuñu fa woon wala leneen <coughs> donc y des rectificatifs yoo xamante ni dina ci am loolu je pense que mënul ñàkk ci li nga xamante ni xamul 553 communes. Mhm. ñu ne am na benn commune boo xam ne am na loo xam ne d'accord uñ fa loolu c'est mën nga jàpp c'est minime par rapport à tout ce qui se passe et Talla c'est un maire boo xamante ni aussi jege na population bi donc am na loo xam ne su amee il alerte c'est pas question d'accord mais day alerter wax ne lii kat war nañ ko mën a wax nangam nangam loolu mooy transparence bi nga xamante ni wax naa ko sànq par rapport à distribution des vivres que l'État va faire. Aliou. Bah écoutez, Non, je, a priori, j'ai pas grand chose à dire je ne fais qu'écouter je je je dis juste sànq maa ngi bëggoon wax bu ñu mën a del tuuti ginnaaw ci li ma wax màkk nit ñi ñu ngi fay dee quoi ñu ngi fay dee te ku fa dee ñu suul la fa kenn du kaas yaa ngi dégg yàlla fépp la nekk quoi mm. pourquoi ñu nangu ku de ñu suul la màkk euh, te te du am problème ba pare ñuy ñuy ñuy mm. sonal fii ci ku dee yaam est déjà parti xam nga le corps ça ne veut rien dire xam nga am na ñoo xam ne boo demee fi tey euh, euh, yoof nii mm. xaw ma kañ lañ gëj a seeti seen main. Donc il faut arrêter un peu d'être hypocrite et puis ñu surtout surtout la sécurité sécurité nag ñi ñu ko a jox au-delà de la décision ultime du président de la République euh, euh, ay le président mën a exécuter parce que tout simplement il leur fait confiance et que c'est leur boulot à eux et euh, pour ce qui s'agit des personnes décédées par exemple du Covid ce matin maa ngi déglu Oustaz Pape Anne mi ngi koy expliquer ne yonent bu doon na wax ni par exemple nit ki bu fekkee jullit bi dafa am feebar goo xamante ni day wàlle mu am ko mm. ñu dem ba këram ñëpp daw ko waa këram ñëpp daw ko mu dem nag ba ñàkk ci bakkanam te ñu xam ne feebar gi mun na law euh, mm. rayaale ñeneen ñi mm. kon kooku dagan na buñ ko mënulee suul ñu lakk ko lakkaale sax dëkkuwaay li dafa sori kooku faatu dañ ne boo feebaree rek feebar boo xam ne day wàll fam la dale mm-hmm. da nga fa toog non c'est pour dire nga xamante na nga mais xam nga comprends l'émotion bien bi nga xam ne mooy entourer la réaction des Sénégalais man man ce que Saniogo a dit dafa wax pour euh, sentiment des Sénégalais c'est l'émotion mais dama ne jamono ji dañu war a jël émotion mhm. ñu wàcc ko jël la raison voilà mmh. te sax euh, Rahma mmh. euh, comme li ñuy wax xam nga keroog euh, am na benn docteur bu ñu fi wax moom moo jiite kuréel bi nga xam te dañ ko teg psychologiquement pour venir en aide aux familles ma ne leen peut-être que loolu sa peut prévoir leur acte en Europe en Europe mais au Sénégal mmh. fii tey am nañu ngëm-ngëm gu fort boo xamante ne tey jii est-ce qu'on a besoin d'assistance parce que nga xam nga pour wane ne war a jël émission teg ko ci kanam xam nga en Europe vous avez suivi Didier Raoul. bu mhm. ñuy wax hydroxychloroquine. Mhm. Mhm. moom dafa bokkoon ci conseil scientifique bi nga xam ne ñoo nekk di Macron. bi coow li bare ñu naan non dañuy def li def dafa oh, bàyyi. Ah. dem Marseille toog fa. ay malaadam mu leen di faj. ak chloroquine ak chloroquine muy wér. démb président France. <laughs> déplacé wu dem ba foofu. dem seeti ko parce que moom dafa ne présentement en cas de catastrophe sanitaire. Mhm. ay nekk fi naan ay non conseil bi validé wul na moom nee na. mi mi mi ngi leen di faj. ñu ngi wér. waaw doo leen faj ba ñu wér ba pare. Mhm. après suñu paree nga lijjanti leneen. ñun gis nañ professeur Seydi fii. mu ne moom. Mhm. Euh, chloroquine bi mi ngi ciy faj te ñi ngi ciy faj kat. ñu ngi wér ñu ngi wér. mu ne nag léegi dina entamer deuxième phase bi dégg nañ ko mu wax loolu. waaw léegi je pense que comme ñu ngi mbir yi. muy wér moom mu ne du fi nekk di xaar ak leneen ak leneen la ba président bi sonnee ak ña ci des dafa jóg dem seeti ko mhm. parce que xam nañ ne aujourd'hui mu ngi wax loo xamante ni lu am solo la parce que Euh, dans le monde peut-être il a des pressions qui se font parce que ah, chloroquine xam nga chloroquine xam nga affaire chloroquine cherul am na ñeneen ñoo xamante ni ils sont peut-être dans la quête de l'exclusivité ils sont dans la quête de ñun suñu réew ñoo trouver li ñun mais je pense que aujourd'hui on doit dépasser cela gis nga un comme je l'ai dit l'autre jour comme Jean-Paul Sartre li mu doon wax en temps nouveau en situation il faut des comportements nouveaux gis nga dañoo toll foo xamante ne nii l'existentia l'existential de existentialisme bi nga xamante ni moom la ñuy wax humanisme mhm. Sartre loolu la doon parce que dafa am foo xam ne boo fa tollee mhm. il faut que tu t'inscrives dans l'idéologie de l'existentialisme et pour nga mhm. inspiré wu Euh, ci idéologie existentialisme il faut que nga mën di jël say responsabilité te jël sa responsabilité mi ngi commencé ci loo xamante ne ni tey ñëw na ñu dénk la ko ay sart jox la ko ba pare askan bi am légitimité boo xamante ni dañ la ko jox yow nga mun a am la responsabilité de décider par rapport ak santé population bi nga xamante ni ñoo la jox seen baat je pense que soo ko deful tu a failli à mission. bu kilifa diine daa ko woon bitim réew. moom nag mooy fële. waaw loolu de dañuy ñaan yàlla rek. non euh, dama ne non xam nga aussi. quand on a euh, c'est que aujourd'hui. mais mais c'est que Aliou il faut être cohérent parce que sànq yaa ngi ne ku dee dee na. non non tey nga ñëwaat di laajaat encore nii. non dama tëj mais il faut être cohérent. c'est que li ma la mën a wax mooy. képp koo xam ne xoolal képp koo xam ne sénégalais nga. nekk dañu naan bu kilifa diine def rek. pour yow loolu bul ci waxaat yaa ne ku dee dee na. non d'accord man loolu laa xalaat. état bi li mu wax état bi li mu wax képp koo xam ne. non dama ne képp koo xam ne sénégalais nga. Ah. képp koo xam ne sénégalais sénégalais tey yàlla def nga génn àdduna jamono ji ci Covid 19 kenn du la rapatrié. waaw loolu la ñuy wax ma la wax. sénégalais xam nga kilifa diine euh, bu Sénégal du burkinabé. du malien ma du malien du burkinabé. mais koo xam ne sénégalais nga. kenn mënu la rapatrier la preuve kilifa diine yi ñooy joxe toujours l'exemple. Mhm. gis nga bi président waxee kilifa diine yi ñoo njëkk a arrêté. wax nit ñi donc je pense que ñooñu ay nit la ñoo xamante ni nii. ñun lu ñu am Sénégal ñu bari amuñu ko. Ah, am na réew yoo xam ne ah, amuñu résilience bi. président dafa am euh, lu mu wax. Hmm. mais est-ce que Abdou jàppoon ne erreur la man bi ma ko déggee le jour même le 3 avril bi mu ko waxee ki ma toogal maa ko naan suba tu verras beaucoup d'entreprises se ruer pour faire des dons. parce que quand le président di entreprise yi joxe joxe ay dons dina am ay taxes yu ay allègements yu ñu leen di hmm, hmm, indil. si seen i taxes ak yi ni mel. le lendemain effectivement beaucoup d'entreprises se sont ruées mhm. Mhm. pour ñii di joxe ay dix millions ñii cinq millions parce que le président est-ce que c'est pas une erreur de communication parce que c'est une chute président li mu wax dafa may il a énuméré plusieurs points xam nga ah si quatre axes ah, j'ai tout suivi mais il faut voir le texte dafa am point ba pare ñu xam nga par exemple. xam nga am na ñenn ñoo xam ne dafa différer seen ay paiement ñii mu kiiwal leen mais dafa ne. entreprise yi nga xamante ne dañuy joxe don. waaw dama ne président. waxul ne entreprise yi joxe don dinañ leen wàññil taxe déedéet. dama ne c'est une suite de la phrase ba na nga gis texte bi dafa am dafa ne les entreprises bu wax noonu bu wax les entreprises ki non je je lance un appel au secteur privé entreprise pour qu'ils ont des dons xam nga point mooy phrase bu jeex. maintenant dans le secteur privé les entreprises maanaam ci lañ eggale wax dinañ joxe fay nangam nangam donc juste pour dire que c'est pas parce que soo joxee rek ñu fay la non. <laughs> quand même parce que aussi pour ñu alléger le TFS c'est parce que da ngay doon entreprise boo xamante ni da ngay liggéey ñu gis ne am nga sec am nga am nga am nga am nga activité boo am mais par exemple man mënu ma am sama entreprise boo xamante ne nii maa ngi liggéey fayu ma impôt defu ma dara aw ma benn activité. Mhm. président wax ma dem ci gomis na ko gomis li jëntil ma vingt millions. Ah man ma dem joxe rek après ñu ñëw ñu wàññil ma impôt pour la te loolu mënul nekk parce que dafa parce que président li mu def. leer na leer boo xamante ni non c'est ce qu'il a dit ah Abdou. non non non mais même dans man bi ma koy déglu bi muy wax ak yëpp mais bi mu accès bi ma foofu wax loolu sans susciter même un débat de 15 à 20 minutes avec euh, mon non non non moi je pense que loolu loolu loolu mënul nekk par exemple base légale. juste pour que ñu wàññi. benn lendemain on l'a vu. la ruée des entreprises. ñii di joxe 10 millions ñii di joxe 5 millions. waaw ah, bi loolu amee la gars yi commencé di joxe. waaw dégg nga xam nga xam nga xam nga de toutes les manières. moi je dañuy dalal seen xel rek xam ne euh, nit koo xamante ni aussi joxe nga dans le plan de résistance dans le ah, absolument looloo tax tey jii mënuñu woon jël budget Sénégal rek ne dañ koy def ci courant. président bi mu defee levée de fonds bi gis nga aujourd'hui on est en train de collecter des fonds pour ça parce que mais surtout les entreprises sénégalaises à saluer parce que entreprises étrangères ñu bari boo gisee les miettes qui nous donnent alors que pratiquement tous les grands marchés sont donnés à ces entreprises étrangères là donc loolu moi je pense que euh, li ñuy non wax loolu mooy xam nga y a des bailleurs bilatéraux mhm. les bailleurs multilatéraux euh, il y a le secteur privé sénégalais ak yeneen yeneen donc aujourd'hui c'est vrai que gis nga on communique sur beaucoup de choses que les gens font mais li ñuy communiquer nii boo dee xool euh, boo da ngay xool est-ce que dina mat 100 milliards sax wala 200 milliards il y a beaucoup de choses qui est en train d'être fait lu waxuñu ko maintenant le moment venu

jàppale population surtout zone ouest bi nga dëkk. zone est la zone est plutôt est bon voilà bon est ak ouest yëpp bon. <laughs> benn la mais. Euh, je pense que xam nga euh, def naa nangam nangam moom comme ni ma la ko waxee c'est difficile. Hmm. de le dire mais hmm. hmm. ci li nga xamante ni moom laa am ci comme moyen pour participer ñi may seetaan dëkk ak man xam nañ ci dara donc euh, je suis pas du genre. Euh, boo gisee defuma benn vidéo benn kii boo gis ñu ne Abdou Mbow def na nangam mais ñi ma dëkkal ci tele laay wax xam nañ exactement si je maa ngi ci ou pas parce que comme ni ma ko waxee rek gis nga yàlla am na loo xam ne bu la ko defalee sant ko mooy souvent li nga man nga jàppale ñoo nekkal parce que c'est très important parce que euh, comme ni ma wax souvent damay wax ñi ma dëkkal waaw ah, jàmm ngeen <coughs> ne leen euh, man dama juddu fekk nit ñi di ndékki di añ di reer mhm. di faj seen soxla mhm. donc du man maa jox nit ñi ndékki añ mais yàlla jox na ma responsabilité boo xam ne j'ai le devoir yenn yi nag nga war ko mën a def aussi parfois du geste également lu tax yow lu tax waroon nekk yow mairie Thiès la man je le regarde je dis mais ce garçon là excuse-moi juste j'ai envie de lui poser 36 000 questions je pense que yenn saa aussi du du def mais wax bi aussi sensibilisation comme ASC ñu dugal leen ñoom it ñuy dem di sensibiliser. non ñu ngi ci loolu loolu ñu ngi ci par exemple man par exemple au niveau de mon ASC ak ñeneen ñeneen xale ñi nga xam nga comme amul rassemblement donc da ngay mën a def rek waa ay des fois nga def par exemple moi j'ai bokk naa ci ay groupe whatsapp yu bari yoo xamante ni eh, dama ci def ay vidéo di leen sensibiliser des fois nga woon nit ñi waxtaan ak ñoom dans le quartier des fois nga dem fii ak booy donc jënd ay donc y a beaucoup de choses que les gens sont en de faire mais mais ñi ngi ci mm. ba pare continuer par les médias souvent comme nii di wax nit ñi nañu gën a toog seen kër nañuy raxas seeni loxo nañu gestes barrières yi ñu gën koo di ko. ñu gën koo waa te boo waxee nit virus bi naawul mais boo waxee nit. mu nekk loo xamante ne nii mën na la wàll da lay wàll donc yooyu mais parce que dafa comprendre benn ñu wax ci xam nga pandémie bi c'est tellement sérieux c'est tellement sérieux que nañu bàyyi itam di ci woote puukare maye ñetti keesu gel maye ñetti keesu eau de javel désinfectant entre autres jarul waaxu ba ministère de la santé taxaw devant les caméras pour dire que je donne wala appeler la caméra dans sa localité gravité pour dire que ce, que je donne parce que la pandémie c'est quelque chose de tey bu fekkoon ne da ngay xew di ngénte wala yooyu ñu làngal la ngay joxe say teranga la je suis d'accord mais pour ça c'est acte citoyen acte patriotique que nit ki di poser mais pas autre chose bon mais mais def na daal c'est que tamit pare na saay loolu man contre ma ko de parce que li tax contre joxe bi da ngay wan ñeneen aussi am na ñoo xam ni looloo parce que bu ñëpp toogee ñu ne bu ko kenn kenn du joxe de. mën na nekk pédagogie boobaa néew doole danañ sonn. non mën na nekk pédagogie donc il faut que tamit par exemple ça yenn yi. mën na nekk pédagogie man ñaari ñaari axe rek laa bëggoon wax après mu mu mu tontu ma euh, mooy question mooy euh, je regarde le garçon euh, Abdou Mbow mais ça fait longtemps qu'il est au niveau de la PR. Euh, bokk na ci ci ci ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko sos ak le président Macky Sall toujours euh, euh, un garçon que je vois man dama bëgg nit bu fidèle ay nit bu loyal nii ak nu mu munti demee yaa ngi dégg donc aux côtés du président Macky Sall il est de Thiès et je ne sais toujours pas qu'est-ce qu'il vaut à Thiès et je me dis mais comment cela se fait-il que moom ba léegi musul xalaat nekk maire u Il, est, il a été vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Il est devenu le président de la commission des affaires étrangères Sénégal extérieur intégration africaine. donc loolu yëpp avec l'ancienneté qu'il a légitimité historique bi nga xam ne moom moo mooy faire valoir justement son assise au niveau de l'APR et de Benno Bokk Yakaar mais surtout aux côtés du président Macky Sall pourquoi il ne penserait pas à vouloir être le maire de de de de de ci benn nit boo xam ne euh, dama ko yàgg di seetlu ak ñeneen ah yoo xam ne mënuñu ko wax fi tey parce que du fi xaj mais surtout dama gis ni bërki démb dafa def benn geste bu doy waar. Hmm. muy euh, euh, te te mu doon liggéey dans le bâtiment comme doomu Khadim Samb bi la li li bëgg li mu bëgg a def génie civil. c'est un monsieur qui est <clears throat> polytechnicien. qui qui est de Thiès qui est extrêmement intelligent qui a fait des choses ici dans ce pays et qui vient de donner 200 millions. ci participation ba pare immeuble am mu joxe ko à disposition pour l'État ce monsieur pourtant marché dañ koy xeex rek. marché yëpp dañ koy xeex mais euh, mënoon naa ko mënoon naa gën a dugg ci ay détails mënoon naa gën a dugg ci détails yi mais mais du fi xaj euh, pour wax ne li may wax ni lu am la te xam naa ni sax saaga boo saaga ne xam nga ko donc pourquoi sama yaram dafa daw bi mu defee geste boobu alors que forcément depuis un certain nombre d'années le gars le gars ce monsieur Baratal que je ne connais pas que je n'ai jamais vu oui à la télé que je n'ai jamais euh, euh, un monsieur serré la main mosuma ko xaw ci télé laa ko mos gis bu ma xoolaatee xëy na du ma ko xàmmee mais gestes yooyu may dégg je sais que c'est le patron de Jean Lefebvre Sénégal waaw kooku bi mu defee geste boobu man se dafa daw boo ko comparé ak yeneen sociétés étrangères yi nekk fii ñi nga xam ne ñu leen di jox yenn marché yi est-ce que des fois c'est parce que ñiy joxe marché yi dans les commissions jël yi ak tubaab yi lañ ko gën a mën a tegal pour les rétrocommissions parce que boobu au moins kenn du leen xamal parce que je sais un petit peu donc est-ce que loolu moo tax ñu koy def je ne suis je ne je ne dis pas que c'est c'est c'est mais loolu lu am la des fois mhm. que ci ci yooyu ah. donc vraiment baaxataal métti na ma trop ko def. parce que tout simplement parce que tout simplement c'est un entre autres bien sûr. pas entrer dans les détails. parce que mhm. peut-être Euh, permettre ma. Mhm. ma dugg ci yenn yi. Mhm. Baratal je le connais très bien. Mhm. maak moom ñu dëkk. mais dama lay wax aussi ne bi président Macky Sall ñëwee lañ ko joxaat. marché bi nga xamante ne mooy Tali Kaolack Fatick. waaw oh, oh, oh. ah, yeneen yoo xam ne comme ni ma la waxee sama position permetre donc du affaire u xeet peut-être. ya yàlla baax na mais. yàlla li ma mën a xam daal mooy c'est quelqu'un boo xam ne. xam naa ci moom fulaak fayda joo xam ne mhm. su fekkoon ne am na loo xam ne gis na ci président Macky Sall mu koy def baaxul bàyyi na ko parce que c' est quelqu'un boo xam ne employé Jean Lefebvre loolu ñëw ba moom Jean Lefebvre mhm. kooku xam nga ne ku am fulaak fayda la te liggéey la je le connais je le connais très bien et je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour ce pays là donc euh, di rafetlu geste bi mu def noonu beneen bi mooy mhm. pourquoi j'ai jamais voulu être maire de Thiès si je, je veux être maire de Thiès parce que même en 2014 ñun suñu liste Benno Bokk Yaakaar au niveau de la de Thiès man maa ko jiite woon j'étais au niveau de la majoritaire mhm. Siré Dia était au niveau de la proportionnelle non non non non non parce que j'étais j'étais j'étais j'étais au niveau de la liste majoritaire man maa ko jiite woon j'étais le candidat au niveau du conseil départemental la man je suis conseil départemental bi ñuy dem au conseil départemental il y avait deux candidats à la mm. présidence muy non trois trois candidats man la woon Idrissa Seck ak euh, nu ñu koy waxee Tidiane Ba mm. Mm, Idrissa moo gagné j'étais deuxième il y a l'autre qui est troisième donc moi je suis président du groupe Benno Bokk au niveau du conseil départemental mais mm-hmm. xam nga loo gis rek jàpp naa ne euh, li ñu naan tepp tepp gën yu réet man dans mon euh, dans ma ville je suis en train de me jàpp naa ne am na loo xamante ni su jotee rek yomb. te man dama nekk mi ngi dooleel ñeneen. oui non non non pas dooleel ñeneen ah. Macky Sall ba ñu ñu dooleel parce que nag kaay ma wax la man Macky Sall. mais est-ce que da ngay xool suivant le point de man Macky Sall du du lépp lu ma ko defal jàpp naa ne fay na ma parce que xamul tax man xam nga la laa gëm ci àdduna. du ay poste de responsabilité yooyu mooy cër. parce que Macky Sall muy président de la république ah, du Sénégal xam nga lan la ma mënal man jox ma yëg man ma nekk ndaw di liggéey ak moom mu jox ma cër boo xamante ni Sénégal boo génn ñu ne kii sax doomu Macky Sall la mais cër la mhm. Mhm. te loolu te ñun te on est 15 de Sénégalais mhm. quand la responsabilité wala nga am chance liggéey ak le premier de sénégalais muy le président de la république te mu jox la cër. je pense que loolu non da nga teew nag. non non non non mais amoon nañu teew te amuñu chance boobu sawaay dama ne am nañu teew gënuma leen ndey gënuma leen bàyyi <coughs> dàquma leen a jàng ëpp ma leen ay compétence te amuñu loolu donc loolu je pense que. Abdou c'est quelque chose boo xamante ni vraiment lu am solo. Abdou comme que dañuy tëj damay tëjee sport. Mhm. Abdou Mbow wax nga ko sànq ci euh, sa introduction. Mhm. Abdou Mbow campagne yu bëri bokk naa ko ak yow. tout à fait ñuy dem sportif nga. kese loolu rek laa bëgg. non non sportif nga waaye dafa am leen loo xam ne. Mhm. Euh, depuis un certain temps c'est la région de Thiès. ou bien même. la ville de Thiès. Mm -hmm. qui domine le football sénégalais. tout à fait c'est une catastrophe. voilà dégg nga ak situation bi mu nekkoon mu génn mais malheureusement malheureusement euh, CNEPS de Thiès et en Ligue 1 sénégalaise championnat professionnel amul benn ndimbal ci yéen ñi ñëpp gisuñu leen dégguñu leen il y a trois clubs de Thiès qui sont en Ligue 2 professionnelle un club de Ligue 1 boo xam ne Ligue mais Abdou Mbow on te sent pas ci loolu foofu loolu nag dinaa dinaa ci ñëw xam nga aussi euh, grand xam nga yow xam nga sport coow yu fa nekk ci club yi yaa ma ko gën a xam du ma ci dugg ci détails li ngay wax nii. Mhm. yaa ko gën a xam c'est pas une question sentiru leen ci club yi parce que euh, Thiès dafa amoon benn club emblématique. raay muy raay. Mm. ñun buñ daan bu raay daan football dañuy am man fa laa def Benjamin minime Kadeba junior. Mhm. dañ daan am ay caravane yoo xam ne dañuy dem tey mu amoon CNEPS ak excellence nga gis ñu fusionné. nga gis am na donc ak raay ak ni mu demee. ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mbiru dëkk ba la ak waa dëkk ba te xam nga loolu dafay bloqué li nga xamante ni mooy ascension benn xam nga am na coow yoo xam ne bu amee ci benn corporation non c'est vrai mbirum dëkk ba ak waa dëkk ba mooy ah. ay jaxasoo yoo xamante nii tax na certaines personnalités dañuy bañ sax dugg fii wala dugg fee parce que xam nga boo dee politique nekk un homme politique nekk un homme publique dafa am loo xam ne waru ah, la mooy bu mbir amee da nga ciy tëddee jaaxaandaay li nga ci war a def mooy te loolu ñu ngi ci dox mooy fexe au moins nit ñi mën a booloo nekk benn mais y a des clubs yoo xam ne à Thiès li ko plombé dëgg dëgg dëgg c'est des dissensions entre des personnes mm-hmm. et c'est malheureux mm-hmm. te xam nga kan moo ci souffrir mooy les jeunes la jeunesse. parce que Thiès ku ko xam-xam ne. grenier la de grands sportifs. Hmm. la preuve wax nañ ko léegi tey Sénégal bu ñu ñëwee Thiès mooy nekk la capitale africaine euh, capitale africaine. Hmm. parce que moom rek moo fa am terrain boo xamante ni tey. mën na homologué nañ ko par la CAF. Hmm. muy recevoir les les compétitions internationales. te et puis à quel terrain. mais Thiès ban joueur bu mag moo fa génn. Ah? Thiès joueur yi fa dégg bu bu ñuy dégg rek temps yi. Ah. mooy xam xam naa ne moom le jeune Diallo non non pas yooyu sax dafa yéex xam nga par exemple Dame Ndoye. Dame ah. Ndoye Dame Ndoye Thiès la fan la jógee. Ousmane Ndoye Thiès la dëkk xam nga fan la dëkk nag suñu koñ jaamu gën la. waaw mais ñooñu posé wuñ luur de. déggoo déggoo déggoo déggoo posé wuñ luur ah. dégguloo Bouba Diakhao dégguloo Bouba Diakhao dégguloo Bouba Diakhao bàyyi Bouba Diakhaw xam nga kii daf non non non non non non Bouba Diakhaw ay Bouba Diakhaw non mais attends dañuy wax ay góor yu mag góor bu yees nga naan ma Bouba Diakhaw Bouba Diakhaw mooy góor attends day melaw quoi non mais attends Sango je veux juste savoir bon loolu c'est juste une question fan nga dëkk ban dëkk parce que ça aussi c'est ah important sax kenn xamul. Euh, non gis nga yow. ci wàllu mbay wala ci wàllu baay. non je veux dire fan. non non fan nga cosaanoo ak ci wàllu mbay. fan nga cosaanoo non yow fan nga cosaanoo quoi. ci wàllu ndey wala ci wàllu baay. non non cosaanoo fan nga cosaanoo. waaw ci wàllu ndey waaw. ci wàllu ndey Jolof. Hmm. ci wàllu baay. Bawol. ah waaw yow xamoo foo dëkk. <laughs> waaw loolu la xamul ah, maa nga dëkk. maa nga dëkk bu dee ci wàllu baay maa nga dëkk Dànk Seen. Ah. bu dee ci wàllu yaay maa nga dëkk Daara Jolof. yow football nga moo ko xam Eh, eh, je comprends pourquoi mu xam nga Bouba Diakhao waaye man nay naan Bouba Diakhao. Eh, merci beaucoup merci beaucoup Onaga boo waxee par exemple coach foo dëkk rek ci saa si nga wax bërëb. waaw waaw ñun boo waxee fu ngeen. waaw mais yow da nga tergiversé gi gi nii ku ne kenn xamul. merci beaucoup en tout cas honorable c'est un plaisir. en tout cas merci beaucoup man aussi maa ngi leen di remercier bu baax di rafetlu waxtaan bi parce que <laughs> je pense que waxtaan bu mel nii am na solo. parce que déjà dinañ ci wax loo xam ne am na solo pour askan bi dinañ waxtaan euh, am aussi. vraiment euh, voilà voilà voilà am une distraction boo xam ne suñu xarit saa et puis vraiment di ko encourager bu baax moom tamit parce que liggéey bi muy def aussi <laughs> comédien bi fii gobis mooy comédien comédien bi gobis la la la ama ama ama comédie moom ama comédie moom ama comédie moom xam nga luy de finesse dañ ko tere woon dem dëj parce que kanam gi rek boo ko xoolee rek dañ ko interdit woon sax dem dëj. maa ngi on se donne rendez vendredi prochain s'il plaît à Allah subhanahu wa ku ci nekk nag ñu leen di waxaat rek leen maytu bu baax ndax virus bi moytu leen li saa wax daal caba également <laughs> léegi day ñëw ak abu Thioubalo daal di tëj nag euh, rek le grand dîner à samedi à vendredi jërë ngeen jëf mbokku téléspectateurs yi jërë ngeen jëf mbokku auditeurs yi naka noonu mbokku internet Walfadjri grand dîner mooy woy ba tey si Walf TV gannaaw euh, pàcc yi njëkk yi mu di entrée plat de résistance bi ak équipe Rahmatoulaye Sarr Awa Diop Ndiaye El Hadj Sadiogu Mbeng euh, Seydina Alioune Sow Cheikh Tidiane